bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu wassalaamu ala ashrafi alanbiyaai wa imaami almursalin sayidina wa nabiyina muhammadin sallallahu alayhi wasallam subhaanaka laa cilma lana illa ma callamtana innaka anta alcalimu alxakim allahuma callimna maa yanfacuna wanfacna bimaa callamtana wa zidna cilman assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillahi alladi axyaana bacdama amaatana wa ilayhi nushur Rewmi FM 97.5 dellusiwaat nañu ak suñuy mbokk ñu ñuy topp ci waxtaanu fajar bi ci waxtu wi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 mbokk yi yéen a ngi fàttaliku buñ doon taxaw ak yéen ñu ngi yemoon ci suñu alwo ba ñu taxawoon ak yéen muy ay jëmm yoo xamante ne fii ci àddina lañu nekk ñu di dund ak ñun waaye yonent bi tegtal ñu seen melokaan mu di melokaan bu doy waar ba tax na bokk na ci tey buntu bañ leen bëgg a taftal ci buntu ba weesu mooy fa buur yàlla tabaraka wa taala di baaxee yenentu bi yenentu bi am ñañu ñooñu am ñañu yar di sahaaba yi ridwanullahi alayhim ajmain sahaabatul kiram ridwanullahi alayhim ajmain ñoomit ñu am ñañu yar seeni keppaar di taabiuna rahimahumullahu rahmatan waasia ñoom it ñu am nañu yar ci seeni keppaar ñooñu di asalafu saalih rahimahumullahu rahmatan waasia moo tax bindkat bi ne qaala baadu salaf bokk na ci salafu saalih ay nit yu baax jaamu yàlla ñu baax ña fi jiitu woon ñu doon kamfóore ci seen jamono ci wàllum diini islaam kenn ci ñoom da doon wax ne annaasu yatlabuuna al izza bi abwaabi al muluk wala yajiduunahu illa fi taatillah igasatun al nifaan ibnu alqayim rahimahullah mbokk yi mag yu jiitu woon ñu baax ya jiitu woon bokk na ci seen slogan bañ doon wax nee nañu annaasu nit ñi mboolem seen dafa am fi fiñ doon utee lay xeetu teddaange moo tax mu ne annaasu yatlubuuna al izza bi abwaabil molok nee nañu nit ñi de ñu ngi bàbbeeku samp seeni xel di daw di dem xeñtu teddaange ak lépp luy privilège ci buntu moomeel waaw nee na wala yajiduunahu illa fi taatillah fàgguteef boobu ñuy fàggu loolu ñuy xemmem di ko nekkee di xeetu privilège yi nga xamante ne dañoo bëgg mu doon seeni moomeel nee xeetu privilège yooyu xeetu teddaange yooyu duñ ko am ci lenn lu ci topp yàlla moo tax mu ne annaasu nit ñi yatlubuuna ñu ngi nii bàbbeeku simpa seen xel di daw di uti al izza teddaange bi abwaabil muluk ci buntu moomel waaw nit ñi dañuy fàggu te dange ci koom-koom ma moom lii naa moom lee lii na doon sama moomeel kër gi na doon sama moomeel maa moom lii maa moom lee moomeel moomeel waaw nga am lu bëri ci àdduna si boo xalaatee ne bi nga doon gane si àdduna amuloo dara la nga àndiwaale moo ne loo fii nekk di mébét ngay moom lépp te booy dem doo yóbbaale dara kon xel war naa xelaat fa muy fàggoo la nga xamante ne mooy privilège yu mel ni teddaange ba tax na mu ne annaasu nit ñi yatlubuuna al izza ñu ngi bàbbeeku di daw di uti teddaange bi abwaabil muluk ci buntu faggute fu moomeel mu ne wala yajiduunahu déet ñu di ko am ci loole moo fu ñuy amee buntu teddaange moomeelu teddaange boobu ana wan buntu lañ koy amee moo tax mu ne illa fi taatillah duñ ko amee fenn fudul ci topp yàlla moo tax keroog ba naafiqi waxee ne ci yonentu bi sallallahu alayhi wa ñu ne ko li fi nekk mooy ah duñ la financé duñu def ci yow dara loo xamante ne dina doon lañ lay campagnal waaye buur yàlla daal di ci saaro suratul munafiquun mu ne ñoom ñooy ñoo xamante ne dañ doon wax ne laa tunfiqu ala man inda rasulillah hatta yanfaddu ñoom dafa bokk ci seen slogan daanañu wax ne bu leen lenn li ngeen di jox waa kër yonent bi ba keroog ñuy toxu ba keroog ñuy jógee ko ci seen keppaar yaquluuna dañuy wax ne hum na ñoom ñooy ñu nga xamante ne yaquluuna ñooy bokk di wax naafiq yi laa tunfiqu déet bu leen financé ala jëmale man ci koo xamante ne inda rasulillahi daa nekk ci keppaaru yenentu bi xataa yan faddu nañ leen ambargoo ba keroog ñuy sonn ba keroog ñuy tot waaw yàlla ne leen hmm, yéen da xamul li xew walillahi ñeel na yàlla xazainu asamaanu magasin ya fa nekk xazainu magasin wu samawaati ya nekk ci kaw asamaan wal ard ak magasin ya nekk ci suuf te ñu fees dell ak xëy xéewal ah ko moom te yàlla dina ko jox yonent bi boole ci way gom yàlla yi walakin li fi nekkal munaafiquun naafiqi de laa yafqahuun ñoom amuñu xel amuñu xelaat amuñ savoir-faire bi nga xamante ne moom la ñuy xelaatee la yàlla di dimbale yonantu bi ak way gom yàlla ñi bokk na ba léegi la naafiqi di wax mbokk yi dañ ne yaquluuna la in rajaana bokk na ci seen kàddu dañ naan bu ñu delloo ilal madinati ci dëkkuwaay ba di madina la yuxrijanna aadu minha al adal dinañu seppi suñu biir ñu doye di ñi su ko defee ñun notable yi ñun ñu dese suñu nomb tànk yu kawee yi hmm. yàlla daal di leen tontu mu ne leen walillahi l izzatu yàlla la ñeel mbooleem xeetu teddaange yi wali rasulihi ak yonenteem ñeel na ko mboolem xeetu teddaange yi walil muminin waaye ñeel na mbooleem way gëm yàlla ñi mbooleem xeetu teddaange yi teddange ba ñu naan bu ñu delloo madina dinañu seppi suñu biir ñu doyadi ñi ñu desee suñu teddange ak suñu teraanga yàlla ne walillahi l izzatu ñel na yàlla mboolem xeetu teraanga ak xeetu teddange yu kawe yi wali rasulihi waaye ñel na yonenteem bi mboolem xeetu teraanga yu kawe ak mboolem xeetu teddange yu kawe yi walil muminina waaye ñeel na mboolem way gëm yàlla ñi teddange yu kawe ak teraanga yu matale walakin li fi nekk mooy almunafiqun almunafiqin naafiq de laa yaalamuun ñoom duñu ki xam la nga xamante ne mooy li xew moo tax salafu saalih bokk nañ seen slogan dañ naan annaasu nit ñi yatlubuuna al izza ñu ngi nii babbeeku di daw di ut teraanga bi abwaabil muluk ci buntu moomeel wala yajiduunahu déet ñu di ko fàggoo duñ ko fa musa amee de moo ne ana fu ñu war a ana fu ñu war a mën a amee teraanga wala teddaange moomeel mu ne illa fi taatillah ci topp yàlla dong la ñu war a mën a amee teraanga boobu ñuy ut ci buntu moomel ba tax na ñu bëgg leen andil léegi ay tegtal yoo xamante ne yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñu ko tegtal waaye mu nekk ci kàddu ju baax boo xamante ne moom la lenn ci saxaaba yi daldi baaxe askan wi bokk na ci la yonentu bi di ñaan sallallahu alayhi wa sallam mu doon ñaan bu am solo min du'aain nabii sallallahu alayhi wa sallam yonentu bi daanoon na ñaan mbokk yi mu naan allahumma najjil mustadcifiina min almuminin rawahu abu daawuda abu daawuda moo solo xadis bi mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daanoon na ñaan allahuma buur yàlla najjil mustadcifiina min almuminin da doon ñaan yàlla nga musal yàlla nga dottil say xéewal ak say taraanga ak sa xettali jëmale ko ci képp ku ñuy niiwal doole ci sama xeet wala ci askanu way gëm yàlla ñi kon képp ku nekk ci xat-xat képp ku ñuy néewal doole jëlal ñaan bi ci waxtaanu fajar bay jaar ci réew mi FM 97.5 ci waxtu wi yow it nga gànnaa yow ñaan bi ñaan bi guddut mooy allahumma najjil mustad'ifina min al mu'minin allahumma buru yàlla buur bu kawe bi borom kàttan bi ku man lépp xam lépp waaw yore lépp maa lay ñaan najji yàlla nga musal nga xettali yàlla nga dottil sa sa xettali ak sa kàttan sa man-man jimale ko ci al mustad'ifina min al muminin way gomi yàlla ñi nga xamante ne ñu ngi leen di noot ñu di leen di doyadal di leen jaay doole di jëmali si ñoom tooñaange boo xamante ne ëpp na te jéggi na dayoo yàlla yow mi yor kattan yàlla nga musal yàlla nga xettali yàlla nga jàmmal yàlla nga faral way niw ñu doole ñi ci kuréelu wayu gëm yàlla ñi allahumma najjil mustad'ifina min al muminin nga xettali yàlla nga musal way doole ñi ci way gëm yàlla ñi yonent bi daanoon na ñaan li yàlla kon ñu nit ñu ngi naan yàlla allahumma najjil mustad'ifina min al muminin allahumma najjil mustad'ifina min al muminin allahumma ya rabbi najjil mustad'ifina min al muminin yal na yàlla xettali way néew yu doole ni ci kuréelu way gëm yàlla ñi amin ya alamin ndax yàlla moone ne ñaan leen ma ma may leen kon ñu ngi koy tàllal loxo di kone ne yàlla nga xettali way néew ju doole ni ci kuréelu way gom yàlla ñi amin ya rabbal alamin allahumma najjil mustad'ifina min al muminin amin ya rabbal alamin mbokk yi bokk na ci lañ leen andil ba léegi ci waxtaanu fajar ba ngeen di wéttalanteeg ñun fii ci Rewmi FM 97.5 mooy maw'izatun lii ab waaraate la bi nga xamante ne kenn ci salafu saalih di taabi'uuna yi ñoo ko baaxee askan bi te mooy xasanul basri rahimahullahu rahmatan waasia xasanul basri nee na qaala xasanul basri addunya salaasatu ayaamin amma al ams faqad zahaba bima fiihi wa amma al gadan fa laallaka laa tadrikuhu wal yowma fal famal fiihi allahu akbar zuhdi li ibnu abi dunia mbokk yi xasanul basri rahimahullah yal ko buur yàlla gërëm moo ñu bugg a won ñetti fanu àddina ñetti fanu àddina day wax doomu aadama bi waaye des na ci yow doomu aadama bi ba xam di nga dégg di wax walla déet kon xasanul basri baaxee nañu ñetti fanu àddina nitu bésu addina trois jours àddina la muy wax ak doomu aadama bi ñu nit ñu ñoddil leen ko andil leen ko ci réew mi fm ci waxtaanu fajar ba ngeen di wéttalanteeg ñun ci waxtu wi yàlla na ñu yàlla may dégg ak topp ñu mun a njëriñu ci lañu xasanul basri bëgg a baaxee si ñetti fanu àddina rahimahullahu rahmatan wasia qaala xasanul basri rahimahullah xasanul basri yal na ko buur yàlla yokk yërmande nee na adduniya addina bi ñu nekk nii de thalathatu ayamin ñetti fan la adduniya addina thalathatu ayamin trois jours la adduniya addina thalathatu ayamin ñetti fan la mu daldi di ñu tegtal bés bu njëkk bi mooy mu ne ñu amal ams démb de faqat zahaba bi ma fiihi yóbbu na la nekk ci moom démb wéy na dem na yóbbaale na la mu nekkee woon kon loolu mënees nañoo wax ne dootu delsi yóbbu na la nekk ca moom filme na la mu war a enregistré ci yow ci climat bi ci lépp démb yóbbaale na bés ba mu nekkee woon ak la nekkoon ci bés boobee démb ñoddi na lépp yóbbaale na ko taxañ na yóbbaale na ko dootu ko andi boo koy fàttali ko sax da ngay sonal sa bopp waaye du la war a mën a delsi moo tax mu ne amal ams xamal ne démb de faqat ca dëgg yóbbu na bi ma la nga xamante ni fii nekkee na ko amal ams démb de faqat ca dëgg yóbbu na yóbbaale na bi ma fii lépp la nekk ci moom démb yóbbu na action yeeg bés yeeg climat yeeg lépp la nekk ci démb démb taxañ na ba mu dëgër yóbbaale na image yooyu ak jëf ya nga fa jëf yow doomu aadama mu di la dégtal ñaareelu bés bi moo tax mu ne la wa amal gadan waaw xamal ne suba fa laallaka laa tudrikuhu laalla laa tudrikuhu nee na suba amaana doo ko fekkee waaw suba moom suba yàlla la la fay xew xamoo ko la fa nekk xamoo ko est-ce que di nga ko fekkee allahu alam yàllaa xam moo tax mu ne la wa amal gadan la nekk ci suba ëllëg ëllëgum yàlla la a suba di ëllëg yàllaa xam la fa nekk moo tax yàlla ñu ne yàlla ne ñu ci alquran wa ma tadri nafsun maza taksibu gadan amul benn bakkan ba xam ëllëg la ngay fàggu mooy ëllëg bés pënc muy suba sii jege nii waaw suba si jege nii di ñëw nii gannaaw tey bés bu ko topp di ëllëg kenn xamut loo fay nekkee ak noo fay nekkee ak la fay xew moo tax mu ne la wa amal gadan ëllëg bay dëgmal di ñëw fala la allaka amaana laa tudrikuhu doo ko fekkee doo ko teewee waaye nag ñetteelu fan bi la la bëgg a wax nii nag loolu mooy terminer la nga xamante ne mooy ndénkaane bu xasanul basri joxe moo tax mu ne la wal yowm bés bi nga nekkee nii nag faamal fiihi na nga ko jëfandikoo na nga ci liggéey nang ci liggéey bés bi la yàlla baaxee bés bi la yàlla wursagal nga teewee ko nang ci xar sa tànku tubéy takk liggéey ci waaw bés bi nga xamante ne moom la la yàlla wursagal nga di ci liggéey nag lañ ci gën a taamu mooy nang ci jaamu yàlla nang ci jokk mbokk na amal nit ñi njëriñ na nga bañ a lor nit ñi sa làmmeñ walla sa loxo walla nga bañ a lor nit ñi ci sa idée waaw nga bañ a jox nit ñi idée bi nga xamante ne buñ ko jëfee jamono bi dina tàkk wala pénc bi dina loro nga bañ a joxe idée boobu nga bañ kaa wax nga bañ kaa jëfe nga bañ a bokk ci kuréel yi nga xamante ne bu dee sañ nañ ko wax soxna Mari nga bañ a bokk ci malfaiteurs yi nga xamante ne dañooy teree nelaw askan wi nga bañ a bokk ci nit yooyu bés bi ngay dund waaye nag nga bokk ñuy jàmmal nit ñi nga bokk ñuy may nit ñi ngelaw bu féex nga bokk ci ñuy noppal nit ñi nga bokk ci ñi assurer sécurité nit ñi na nga amal nit ñi njëriñ bés bi la yàlla wërsëgal nga nar dund moo tax xasanul basri nee nañu duniya àddina de salaasatu ayaamin ñitti bés la amal ams démb de faqat zahaba bi ma fiihi ca dëgg-dëgg démb taxañ na la nekk ca moom yóbbaale na ko démb wéy na yóbbaale na lépp la mu nekkee woon wa amal gadan mu ne la suba bii di ñëw nag hmm, fala la allaka laa tudrikuhu xëy na doo fekke suba kon suba bu ko sóor boo koy sóor tamit ah xaaral ba mu ñëw rek waaw loo fa war a nekkee nekkee ko waaye nag mu ne la bés bi nga nekke nii bés bi bés bi ngay dund nii nga xam ne yaa ngi dund bés bi Hasanul Basri nee na fal amalu fiihi na nga doon kuy xar sa tànku tubéy takk sa ndigg di ci liggéey nang ci liggéey la lay njëriñ ci sa àddina nang ci liggéey lay njëriñ nit ñi waaye nang ci liggéey la lay njëriñ keroog bés pénc mu doon la nga xamante ne mooy la ngay fàggu la nga xamante ne mooy bés bi ngay dund kon mbokk yi lii yëpp dafa bokk ci xeetu taraanga woo xamante ne réew mi FM 97.5 nañ leen ko ngir ñu bokk ko ak yéen ñu war koo dundandoor ak yéen bi léegi mu bokk ci sunnatul mahjura mu doon ma yafaalu min man yasnibu zanban mu nekk sunna soo xamante ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko tal képp koo xamante ne seytaane manipulé na la ba nga bàkkaar moo tax mu ne maa yafaalu man yaznibu zanban ana la waay di def ki nga xamante ne rëccale na ba mu jëf bàkkaar seytaane manipulé na ko ba mu bàkkaar qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam maa min abdin yuznabu zanban fa yuxsinu tahuuran tumma yaquumu fa yusalli rakaatayni tumma yastaghfirullah illaa gafara allahu lahu tumma qaraa haadihi al aaya walladina ida facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaru llaha fastaghfiruu lidunuubihim wa man yaghfiru dunuuba illa allah walam yasrifu ala ma faalu wahum yaalamuun sahihu abu daawud mbokk yi yal na jàmm yàlla nekk ci yéen ak seen njaboot yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ma yalla yónni mu nekk rahmatan lil aalamin ndax loolu la ko yàlla wax ne ko yónni bi ma la du lenn du dara lu dul nga doon yërmande ñeel mboolem bi ndaa foo ni yonent boobu ñu ne képp ku seytaane ruux bi nga kon kay déglu lala yonent bi wax ne loolu nga war a def sallallahu alayhi wa moo tax mu ne maa yufalu man yuznibu zanban ana la waay wara a a def koo xamante ne seytaane mën na na seytaane dalaa mëne sàggan loola ba nga bàkkaar ba nga jëf bàkkaar waaw yonent bi sallallahu sallallahu sallam maa min abdin bépp jaamu yàlla boo xamante ne yuznibu zanban bàkkaar na ci bàkkaar yi ba noppi fa yuxsinu tahuuran mu daldi di laablu moo xam dafa sangu moo xam dafa jàpp thumma yaquumu fa yusalli rakaatayn gannaaw si mu daal di taxaw julli ñaari raka summa yastaghfirullaha gannaaw si bu mu jullee ba mu toog jéggalu tuub sàkku fa yàlla ngir yàlla jéggal ko yonent bi nee na illaa gafarallahu lahu lu dut buur yàlla dina ko jéggal gannaaw si yonent bi daal di jàng aaya ba nekk ci alquraan moo tax mu ne summa qaraa haadihi l bi daal di jàng aaya bi mu ne buur yàlla daf ne ci téere bi walladina gaa yi nga xamante ne ida faalu bu ñu jëfee fahishatan ab ñaawteef bàkkaar bu ñu jëfee bàkkaar wala ñu jëf ñaawtiif aw zalamu anfusahum wala ñu tooñ seen bopp ci xeetu bàkkaar ya ñu jëf ca saasa zakarullaha fastaghfiru li dunubihim dinañu fàttaleku yalla tuddu yàlla ñu daldi di seen bàkkaar woowu ci yàlla ñaan yàlla na leen yalla jéggal seen bakkaar yooyu waman yaxfiru yonentu bi nee na yàlla dafa laaj ci aaye bi anakan kay jéggale zunuba bàkkaari illallah ku dut yàlla te yow mi jéggalu sa bàkkaar yooyu walam yusrifu te riccu nga mébét nga ci sa xol ne dooto dellu ci li nga jëf moo tax mu ne walam yusrifu ala ma faalu wahum yaalamuun ah xam nañ ne lañu jëf nii de lu jëfewul la lu ñu warut a jëf la bàkkaar la ba ñu faggoo ci merum yàlla waaw bàkkaar ba ñu jëf nii de mënees nañ si faggoo merum yàlla waaye jamono buñ ko defee ca saasa zakarullah dañoo tudd yàlla fàttaliku yàlla fastaghfiru li zunubihim ñu daldi di sàkku njéggal fa yàlla yalla ne wa man yaghfiru zunuba illa allah moo war a jéggal baakaar ku fi nekk di jéggal baakaar yi dut yàlla ah question bi moom yalla rek moo ko war a mën a réponse yàlla dong nga war a mën a tontu question bi waaye ñu nit buñ koy tontu de mooy amul kenn ku fi nekk di jéggal bàkkaari jaami ku dut yow yàlla walam yusrifu fekk ñu jëf bàkkaar yooyu nekk nañ ñoo xamante ne ñu nekk di bakku wala di doon ñu mébét ala ma faalu ci lu ñu jëf noonu waxum yaalamuun fekk xam nañ ne lu ñu jëf nii bàkkaar la waaye ñu mébét ñu doon ñu mébét ci bañ a dellu ci bàkkaar yooyu te bàkkaar ba ñu jëf di reconnaître nañ ko xam nga am na ñoo xamante ne soxna Mari dañuy bàkkaar ba pare lànk ne duñ ko reconnaître waaw tooñ yàlla tooñ sa bopp jëf bàkkaar bu ne wàññe nga ne doo jéggalu ku la ne jéggalul sax nga ne non lu ma def lan lay jéggalu rëy jàpp waaw te yàlla nee na amul kenn ku fi nekk di jéggal bàkkaare ku dut man yàlla moo tax mu ne wa man yaxfiru zunuba illa allah ana kon ku fi nekk di jéggal bàkkaare ku dut yàlla amul yàlla doo fi nekk di jéggal bàkkaare kon da nga jéggalu sa bàkkaar bàkkaar yi nga def cinquante ans ci ginnaaw boo ko reconnaître tey jii ci deux mille vingt quatre bi xalal na nga jàpp ba set wala nga sangu ba set julli sa ñaari rakk tuub jéggalu yàlla jéggal la mooy effacer la wallahi yow na nga reconnaître sa bàkkaar rek da nga am sañ-sañ bu toll ni ne da ngay sukk ci kanamu yàlla jéggalu sa bàkkaar yooyu yàlla ne waman yakfiru zunuba illa allah waman yaghfiru zunuba illa allah anakan ku fi nekk di jéggal bàkkaar yi man yàlla amul yàlla do fi nekk di jéggalu bàkkaari jaami kon nañ leen jéggalu suñu bàkkaar yi fa yàlla nañ leen ñaan yàlla suñu borom mu jéggal ñu suñu bàkkaar ndax loolu la wax ci njeexantalu suratu nasr mu ne wa raayta annaasa yadxuluuna fi diinillahi afwaajan fa sabbix bi hamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawaaban waaw ndimbalu yàlla bu la dikkalee yow yonent bi wala yow jaamu yàlla bi yàlla xettali la ci la nga nekkee woon mu may la victoire ah na nga sabbal tuuru yàlla nga sant ko ci xéwal yam la defal waaye nanga nga bëril la ngay jéggalu sa bàkkaar fa yàlla ndax yàlla mooy buur bi nga xamante ne mooy nangu tuub waaye moo fi nekk di jéggal bàkkaar yi moo tax mu ne yow doomu aadama ba bàkkaar na nga jéggalu na nga sa bàkkaar su ko defee nga daldi di ba tax na yàlla nee na mooy ki jéggal bàkkaar yi moo tax mu ne walladina gaa yi nga xamante ni ida faalu fahishatan bu ñu defee ñaawteef wala ñu bàkkaar aw zalamu anfusahum wala ñu toñ seen bopp ci xeetu bàkkaar yee ñu jëf zakarullaha dañuy fàttaleku yàlla ca saasi dañuy tudd yàlla fastaghfiru li zunubihim dañuy nangu jéggalu seen bàkkaar fa yàlla ah wa man yaghfiru zunuba illallah yàlla daal di posé question nee na anakan ku fi nekk di jéggalu bàkkaar yi ku man yàlla ah amul kenn ku fi nekk di jéggalu bàkkaar yi ko du yow yàlla kon yàlla ñu yàlla jéggal walam yusrifu ala ma faalu wahum yaalamuun te du ñu mébét du ñu mus a reconnaître ñu dellu ca la ñu defoon ci xeetu bàkkaar te ñoom xam nañ ne reconnaître nañu accepté nañu ne lu ñu def nii lu defuwu lu ñu def nii kenn waru koo def lu ñu def nii bàkkaar ba ñu bàkkaar nii de bàkkaar bu ngand la waaye nag ànd ak loolu reconnaître nañ ne yàllaa fi nekk di jéggal bàkkaaru jaam yi ba tax na sukk nañu sangu nañu jàpp nañu juli nañu ñaari ràkk dëkk nañu seeni loxo ci buntu yërmande yàlla ak buntu njéggalam ñu di ko ñaan ngir yàlla mu jéggal leen seen bàkkaar kon ñu ñu ngi tàllal suñu loxo ci buntu njéggalu yàlla di ko ne allahuma xfir lana wa li walidina yàlla ñu yàlla jéggal ak suñuy wayjuri allahuma xfir lana zunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar allahuma ya rabbi ati nufusana taqwaha wa zakkiha man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha fa ni'mal mawla wa nasir mbokk yi waxtaan bi jeexul dañoo yëg si fu ñu war a yëkkatee jotaay bi fas yéenee jébbal bérëb bi ñu joxe xibaar ci nasaraan ñaanal leen yàlla suñu borom tabaraka wa taala yanuñu yàlla may dëkk topp amin ya rabbal alamin allahumma ya rabbi aminna fi awtaanina waslihi allahumma a'immatana wa wulata umurina allahumma ya rabbi ihfad biladana min alfitan ma dahara minha wa ma batan amin ya rabbal alamin allahumma ya rabbi nasaluka an taghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma alanna